Bambilor fii ab dëkk la bu ñu sanc ci atub 1922 ab campement la woon dund bi neexoon lool wante at yu mujj yi askan wi lu metti la ñuy dund saa yu nawet bi ñëwee kër gi lu metti la fi askan wi di dund at bu jot. Oh, sama duus baa nga ne xoolal mu nga nee duus baa nga nee daa màbb xool ngeen sama tànkay xool nga liggéey daana yi may daana waa kër euh, mbay tabara mii di ma ree bu ñu yëgee fii sa way meer ba daanooti na si ndox mi waaw waaw na naa ndim wax rek te du sero dara du ñëw man de amoo mel na ndimbal man coro jàll dara duggul sama kër waaw du dara lu ñu ma dimbalee xool bàyyi njañ jóob la ah ñu ngi ñu ngi xaar ba xam njàqare dina dañ wala du dañ ñu ngi dunda yaakaar maa jënd maa jënd ka gis nga ka ni fii ñu bu ne fii ñu toj di ma ko dugalal maa jënd ñaari camion yi suuf camion yi moom laa jënd ñu ñëw sottil ma indiwaatal sottil ma ma fay leen du dem waaw fay ñi ma xale yi may dugg une petite ma ko doon dugalal ma di leen fay surne waaw ñu dugalal ma ko fi mu ne damay jëndaat mu ngi nii des na yële waaw ñaari camion yi fii lay yem damay jëndaat <laughs> comme <coughs> maa man kay an mu jot sama kër gi man la sama seen dara fekkuma fi daray politique seen fekkuma fii moo tax man rek seeni wax lak man ah maa ngi sant yàlla daal seen dara fekkuma fii moom daal dara man daal jariñuñ ma dara bokk gis nga nii furne bii bu yàqoo damay jënd ba ne bu ñu taalee si gaz bi bu gaz bi jeexee ñu taal si fourne bi mënuñoo taal si biti si biir la ñuy taal waaw bu nawetee si biir fii laay taal fi la ñuy añe waaw bu ma xëyee samay set may jaay di si suturlu maa leen di jox ndékki waaw ñii seen papa gaañu na ma yor leen waaw maa leen di jox ndékki di leen jox añ di leen jox reer li ma dëkkal ñii ñëpp jànq bee di dem magam a ngi nii si buru ne si biir barka démba si kare mu ngi nii barka démba ñaari junne ñaar téeméer démba ba mu fa entré ñetti junni laa fay mu ngi nii si biir waaw ay garab aw ndimbal la ginnaaw yàlla yeneen tam Xalifa Malick si waaw nag mooy quartier bokk ci quartier yi gën a mag ci Bambilor soxna si di ñu nettali ni ñuy dundee saa yu nawet bi ñëwee. ah ñun de liñ ci doon dund daaw metti woon na torop ndax fii lañ nekkoon suñu kër yi ñun gis ak secteur bi yëpp kër yi yëpp day fees ñu nag ba ci école bi yëpp day am ndox waaw te boobu léegi ñu ngi ciy ñaanam kenn dimbalewuñu dara jotuñu ko ci fii ku fi jëndalu sa bopp jéem a débrouiller sa bopp jëndal sa bopp amoo si dara wala nga dem àbb sa morom mu àll loolu dong danañ si am waaye kenn dimbaliwuñu si dara. moto yi ñu doon wax naa naan ci maire bi am na fi ñun bi ñu demee bi ñu doon àbb ñun kenn aaluñu àbb nañ ba sonn waaye kenn aaluñu waaw ñun ñooy jéem a jël suñu soo di ca suñu bopp ngacc nañu ngacc ba suñuy femme ñun ñëpp ku ci ne tooy nga ñii feebar nañ ci bi bëgg a dee yokk ordonnance yokk mbënd mi gën a métteeti waaw yile construction yu yees nekk lu ko jaaxal jamono ji ndax njortu na ni lii dina indi gàllankoor bu nawet bi ñëwee liggéey bi boo moytuwul day gën a metti ndax kër yi tali bi dafa xóot dafa kawe kër yi dañoo gën a xóot fi mu ne waaw kër yi fi mu gu ci génnoon fi dangaa gën a xóot dugg kon fi mu ne nii boo sëkkul wala nga ut moto pompe yow boo moytuwul gaal ngay yoon ndax kër yëpp ay fees. Euh, ŋàcc boobu ñu doon ŋàcc courant bi ngay balancé soo jëndee gaz waal boo sottee ci moto pompe bi ñaari xëcc ngay xëcc mu arrêté. ak nga mënoo minute bu jox nga jënd waa litre ñaata lay jar presque 1000 francs loolu mën nga see dëkk boole ko yow yaa ngi bënn mbënn maa ngi ñëw say néeg tooy say yére say xale di ami góom ah nga sonn di dund lu metti boole ci yetti facture courant yoo xam ne mënoo fexe ba fay ko ndax courant bi machine bi courant bi moo koy dawal. dina Alioune Diallo njàqare la àndal bi mu gisee pavage yi ñu def ci diwaan bile te amul benn yoon canalisation. Bambilor dëkk doon na dëkk boo xamante ne euh, jamono ji day dund li nga xam ne moom mooy inondation rawatina euh, hivernage bi passé donc euh, sonaloon nañu lool lool lool lool lool comme ni nga ko waxee nag li ci bees mooy Promoville bi nga gis mu doon loo xamante vraiment pour taaral dëkk bi la pour defar dëkk bi la mais li ñu gis que ne rek au lieu mu wàññi li nga xam ne moom mooy inondation yi mais am nañ tiitaange ren lool lool lool daaw inondé nañ mais gën nañ am tiitaange li ko Euh, lii amul la dara loo xamante ne canalisation la dañoo ñëw rek pavé donc voilà teg lu ñuy teg te boo seetee loolu moo gën a kawe li nga xamante ne moom mooy kër yi. te d'habitude ndox mi da doon euh, jóge ci kër yi di jaar ci mbedd mi pour wala euh, ngan dem mais malheureusement gis nga comme ni ñu ko tegee kër yi ñoo gën suufee tey jii te amul benn kanal boo xamante ne ndox mi dana mën a génn pour tey jii ndox mi génn ci kër yi problème la moo tax tey jii ren moom yaakaar nañ ne. ah xaw ma feneen de mais fi ñu nekk fii nii nii jàpp naa ne ren la ñuy ëpp inondation parce que tali bi moo gën a kawe euh, biir kër yi. bi ñu demee beneen boor fii ci Bambilor tase nañu ak sàmba Fall. ci la bokk yëpp ñax kenn xamul góor gi ànd na ak ñun ngir won ñu bërëb bi nga xamante ne ay gàllankoor képp lay jural askan wi. lii nga xamante ni tey surface boo xamante ni à peu près moins la. utiliser ko poulailler la ko yor bàyyi ko ba nga xamante ni comme forêt la ci biir koñ bi lu nekk nag mën na fi xew parce que wax naa leen il faut ñu démolir ko dindi ko das ko muy jeex ndax ñun suñu njaboot ñoo fi ne jaan yeeg siiru yeeg lépp ngi ci biir affaire bi te loolu ñun mënuñu si dara ndax moom moom alalam nu bëggoon nag autorité jàppale nu bi ñu jógee foofu dem feneen itam melukaan bu jéggi dayu bi lañu fi fekk li nag jaaxal askan wi ñoom ñëpp bokk benn kàddu xaw a doy waar mooy dimanche bi passé ay jaan dañoo génne fii presque rey nañ fi ñetti jaan ak benn boo xam ne gis dafa disparaître kon ñu ngi ci benn danger loolu nag bi mu amee avertir nit ñi nga xam ne ñoom la ñu war a avertir mooy conseil bi ñi nga xam ne ñoo fi ne ci conseil wax nañ leen ko le préfet tamit wax nañ ko ko le sous préfet wax nañ ko ko waaye gis nañ ne boobu ba léegi tamit problème yi ñu fi am te lii nag du ren rek daaw ak daawaati bi jëm ñu te fii nag boo dee xool li nga xam ne mooy canal bi nga xam ne pont canal bi nga xam ne mooy gën a fële chaque jour ndox mi duggee fii day des yi kër gi ngeen gis mu ne sama ginnaaw kenn dëkkatu fi ñax ñu fi ne barax ñu fi ne lu ne mën na takku ne dem nañ ñu wax la ko kon nag li ñuy ñaan moo ñu lu ñu xool lu ñu ko dindil ba xam ne au moins ñun ñi population ñoo dëkk fii du ñu nekk ci danger waaye li nga xam ne moo fi am lu doy waar ndox bi ngeen fi gis nii du ndoxu ndoxu daaw la woon wala am na xam ne sax ndoxu daaw gis la chaque jour ñu ngi ciy wax waaye chaque jour problème bi dafay dafay dafay dafay des kon nag bu ñu soñoon ñu am ñu si jàppale ba nga xam ne li fi nekk ñu mën cee ñi nga xam ne war nañ koy fi nekk yëgal nañ leen wax nañ leen ko bu ñu xoolee nañ fa ay jeunes yu bëri ñu ngi taxaw ah, na trop surtout ñun ñii nii nga xam ne si digg bi leen nekkee te yéen a nga wax daaw mais c'est du daaw du ndoxu daaw. 2019 ba léegi moo ngi fi te loolu noonu mën nañ wax ne si ñun la mën nañ wax ne si ñëlale parce que ñoom lenn lañ fi am dañuy ñëw wax dem te ñun si ñoom lañ sukkandiku mais su doon ñun ak ñun kese wax dëgg yàlla ndox mi. do bëgguñu mu tokk parce que lii tëj yëpp si ñun lay méttee ñoo ngi nii ñu suñu kër chaque année day inondé day inondé te ma affaire mooy loolu daal neexul neexul si xol tamit di liggéey ndox mi di ñëw di liggéey saa soo liggéeyee ndox mi yàq ka noonu dafay métti quoi trop te suñu sañoon aussi tamit gars yi ñëw jàpp si parce que lii je peux dire que pas quelque chose boo xam ne dafa méttee liggéey. dafay gën a grave mm. dinañ dem ba ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk ci koñ bi duñ fi mën a nekk kon nag jàpp nañ ay citoyen lañ ci dëkk bi lañ dëkk ay sénégalais lañ kon war nañu mën a taxaw xool ñi nga xam ne ñu dundee ñu mën ñu dimbali ñaanuñu kenn pour ñu def lu ñu def suñu poche mm. loo xam ne luy defar koñ bi ñun loolu la lii lu tuuti la parce que gis nañ fi yeneen dëkk ay Kër Massar moo ngi noonu ba ñu bëggee ndox mi jóge fa dafaa jóge ak yeneen ak yeneen pour ñoom ñu jëlee ko fi quoi parce que méttiwul quoi. même ay jaan ñoo fi nekk di génne sang bi nii te bul xam imagine toi ndox mi gën a bëri si dëkk koñ bi mu génne gars yi génne si biir ñu jaa jaan maata leen xam nga après lan la ñuy wax dañ naan suñu fët la parce que ñoo ngi gis affaire yi mooy loolu ñun d'ailleurs ñoo ngi suñu ginnaaw kër instant yi kenn du kenn du fóot ba weer foofu noonu ndax ndax ndax ñax bi am na benn affaire bu muy dégager si si yére yi lay ñëw et tout ça lekkat tamit de même chose. imaamu quartier bi la itam seeti nañu ko kàddu yii la yëkkati. fan yi nag moom yàlla dafa dogal eh, ay jaan di fi feeñ yu baree bari ci koñ bi sabab bi nag mooy dafa am ay parcelles yu fi nekk yoo xamante ne dafa bari ñax lool nawet bi bi mu ñëwee kër yooyu dañu fees ba ñenn ñi génn mu sax ay baraxak lu ne. ginnaaw gi nag ci fan yi paase rek luy war a mat ñaari fan ñett daanaka bis bu ne bu ñu xëyee dañu jàmbat ni gis nañu fi jaan wala rey nañu benn sama doom bi sax fan yee paase moom ma wax ni ma dafa génn ba nële ci booru tali bi mu am ku mu fa dajeel ñu won ko fa benn ba ñoo ko rey ak beneen boo nga xamante ni jëkk nañ ko rey ba moom bu mag la moom démb it ñi ma dëkkandool ku mel ne soxna Faama Njaay mi mi ngi may woo ni ma waa imaam lu ngeen di wax ci jaan yi dugg ci biir kër yeeg ma ne ko am nañu jàppan réunion pour kër chef de village xam naa bu nu yàlla mayee ban dem fa daan ko waxtaane tey nag ci suba gis naa ci biir bayal bi foo ngeen si ñi ngi commencé gor ñax mi waaye daal xam naa ne ku ci dimbali daal dina baax ndax place bi lëndëm na guddi lampi mbedd yi bariwu fi te ay ndaw fi ëpp yoo nga xamante ne dañuy dox ñii di dem di jàngee ko ñëw te xam bari na ci ndaw yoo xamante sax xañ na miinuñu jaan wala ñu xam ko ba man koo daw genn dawin gi waaye ñi nga xamee ne xam nañu lan mooy jaan di mag ñoom moom dañ ko moytu bu baax a baax su ko defee daal xam naa ni yooyu kon bu dugo dugalee ngeen yëg si fi te yor benn jumtuwaay boo nga xamante ni ku ci wax ñëpp dana ko mën a yëg su ko defee ñu jàmbat ko fi ku nu ci mën a dimbali daal ci lu gaaw ndax nawet baa ngi ñëw rawatina ci wàllu ndox mi ni nga xamante ne noonu la doon demee def fi ñetti at ba ñeent yu ñuy passé yëpp gis nga kër gi ni mu mel daanaka li ñu dal lépp ndox mi la ko daan muur. léegi nag fa tabaarakallaahu ba tey des na fi li ko jàpp nii ba dem taliba wala kii kër yi fi dëkk yëpp ci biir ndox mi la ñu nekk. at bu jot dañuy gis ni ay kilifa dañuy bàyyeekoo ci gouvernement bi wante itam ci mairie bu Bambilor ngir ñëw saytu li nga xamante ne bii moom moo di métitu askan wi ngir jëm ci indi ay saafara. wante seen visite yi lay amul benn njeexital ci dundinu askan wi. autorité yi dañuy ñëw ak a dem ndax su fàttalikoo daaw jéeg préfet ak le ak maire. ak Thierno Amadou ñëwoon nañu fi bi inondation bi amee fii ci kër Imam Diop Cheikh Diop boobu ndox mi bari na fi kenn mënul dem kenn mënul ñëw ba nu waxee nag wax nañ waaye ba léegi gisuñu si benn résultat autorité yi ñëwoon nañ fi daaw waaye bi bi ñëwee ba tey gisuñu kenn loolu moo tax daal noonu koy jooyaat di woo ñi nga xamante ne yàlla dogal na ni ñoom am nañu baat te man nu cee dimbali ci wàllu gouvernement bi ñu dimbali ndax nawet baa ngi tàmbaliwaat démb rek maa ngi gis taw na Touba kon nag daanaka jàpp nañ ni kon tàmbali na ci biir réew mi fii la jëm si kon ñu bàyyi ci xel daal lu ñu mën a dimbalee nu dimbalee nu ngir jëmmi yàlla ak yonent bi nañu jàppale askan wi xam nga nekk fii di jënd ay moto de pour jënd ay essence te loolu yëpp baax na trop trop mais da fagaru moo gën faju te malheureusement autorités duñ ko def donc ñu ngi leen di woo nañu xam ne nawet bi presque commencé na dugg ci yenn partie Sénégal nañu jàppale askan wi yërëm askan askan wi parce que askan wi jamono di dañoo sonn lool lool lool coono bi ñuy dund buñ ci naree bokk euh, boole inondation dana doon loo xam ne dafay compliqué lool lool ba tax na ñu ngi leen di woo ñu jàppale askan wi. gannaaw mbënd mi fii ci këri suuf ci diwaanu Bambilor askan wi itam du joytu yeneen yi jafe-jafe yu ñuy dund. wàllu dégg nga ma comme kii bi euh, courant bi gis nga fi mbedd ngi nii ba dem tali ba benn lampe nekku fi. yooyu nag bu àmbee di lëndëmtig booleeg jaan yuy génn ak yeneen ak yeneen ah bu boobaa jafeñ-jafeñ lay doon yoo nga xamante ne dafay nekk di am gannaaw ba ñu noppee ci bile gestu doon xool askan wi naka la ñuy dundee ci bile diwaan jéem nañoo taataan kàdduy kilifay dëkk bi ngir ñu ñëw ci matukaay yi nga xamante ne bii daañu ko jël ngir askan wi bañ a dundati lu ni mel muy jamono ji nga xamante ne amul kenn si ñoom ku noppee tontu suñuy laaj wante askan wi ñu ngay jël seeni matukaay ngir bañ a dundaat lu ni mel.